sa deex mi dafa gént may maajloo ay chinois jërëjëfe Serigne Touba ma ne ko du gént déglu ma ne ko du gént déglu ma ak ñoom même kàll dinaa leen ko def loolu loo xam ne day xaw a nuru seen langue te du seen langue ni leen yécceen si cin wàccaa yi ci da ca macca ba cëgg ca ngecci ci ceen ñi ciw fii ci li ci macca ne cek ngecceen accan di ci accak maccan yéen chinois yi dama bëgg lii ngeen nekk bu ngeen ñëwee fii lii ma nekk ngeen àndi ceeg man loolu laa wax.